arful yee u yaqini ilaahi sunu boroom mi aji mag ji nguur musal na ma ba jox mag wóolu te waxu moom sunu boroom yuxu yi mooy aji dundal ja kulliyati saa lépp man ahmadu bi jaahi rasuulillaahi mi ngi ma ko defale nag ci darajaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam muhammad moomu nga xam ne man na uhyi muhammad alayhi salaatu wasalaam yoon wi mu rëdd sunu boroom yónni ko ci ñépp ne jaar ci yoon wii di am ngërëmal yàlla daa texe man dundal naa ko man sëriñ Tuuba yaddi samay yoxo man ahmadu walisaani ak saaw làmmiñ man ahmadu ma fuwaad yi ak saab xol man sëriñ tuuba wa jussat ak saaw yaram man sëriñ tuuba amaha ilaahi sunu boroom aaral na ma leen an asan ci mbooleem luy xeeti lor ci kaw jiir ji muy ci kaw suuf si ak ci biir géej sunu boroom aar na ma fépp moom sunu boroom mi nga xam ne maahiyan xay yi mooy aji dundali ja te mooy aji farja mbew te mooy aji farja ak riir yobbu sumti dee yi tagg wi may tagg yonent bi alayhi salaatu wassalaam day yulli maanaam day génne jumlatan mboolem xeeti mbooloo ya nga xam ne haasaha nabi sunu boroom jox na ko yonent bi mbooleem ko bokk ci mboolem yonent bi alayhi bu déggee tagg wi may tagg rasulilaay ees di ko yëkkati fi bar mbooloo yooyu dañuy génn mina nafi ngir njariñ li nga xam ne mooy tukkee ci tagg woowu ma tagg Muhammad bu génnee ci làmmiñu ko koy jàng dugg ci noppam kenn ci waa xeetu Muhammad mbaa ñenn ci waa xeetu Muhammad dañuy dal di génn ndax wax wa moom Muhammad al bahru géej la goo xam ne sol jal bi géej guy ñoddi nit ku yiw la ci mu gën a am ngërëmal yàlla waa naf yi géej guy dàq nit ku bon la mu gën a sori way baax ya ndeysaan yamiinu nabi loxoob ndijoorab ku ñu solooka di yonent bi alayhi salaatu nekk na ca ataaya ay may yu kawe may yu yiw mu ngay génne ca loxol ndijooru muhammad alayhi waaye may yooya li sicc ma nga jëm ca ñay waroom ak góorgóorlu ci diine góor góorgóorlu ci lu baax ndeysaan alayhi salaatullahi yal na dollee wàcc ca yonent ba xéewale sunu boroom may aji màgg ji nguur si laxaw fi sunu boroom moomee nga xam ne mooy boroom njéggal ga wala hëdd yi nga xam ne mooy boroom a ginde yal na nu yasaaru nabi loxol càmmoñal yonent bi alayhi salaatu wasalaam fiha nekk na ca loxob càmmoñ ba xafaaya ak laq goog da koy laq ak mëdd goog da koy mëdd li siixtidaa ñay boroom ak jalgati ci diine sunu boroom dafa def ca loxol càmmoñal rasulullahi loo xam ne day muur ñooña ba nga xam ne fa mu leen muur rekk lañ mën a yem dootuñu mën a dootuñu mën a déplacer di yàq diine fenn diine ji wëndeelu loolu tax diine siiw ñee ko nar a yàq sunu boroom moo leen di bés ba duñu mën a am doole lépp nag ma nga bàyyi ko ci barke Muhammad alayhi salaatu wassalaam loxoob càmmoñ ba moo leen di bés alayhi salaamullahi yal na dollee wàcc musul ak surom borom ga ca yonent bi sallallahu alayhi wa amin kaafi koo ki nga xam ne ci dara jaam la sunu borom di fege ak di jañaxe sawil bax yi ñay waroom ak bew ba duñu mën a am doole ci kaw jullit yi ndeysaan sëriñ Tuubaa nee na yu jaawiruhoo kulli fa sa lépp daa faf dëkk ak yonent bi xaadiman lahu mu di ko liggéeyal nag bii ci nameel ak sunu boroom te bii ci liggéeyal googu nga xam ne maa ngi koy liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wassalaam surtout saa xurbin mujj naa nag di boroom ak jege ma bokk ca way jege ñaale ya ndeysaan te wakkuntu nekkoon naa saa nax di boroom ak sori waaye ci ndimalal yàlla man ahmadu bokk naa ca way jege ñaale ya sallallahu alayhi wa sallam yu sayyiru nii daf maa mujj def kël aali ma mel ni njaboot ak boppam ndeysaan saa maam jooju di yonent bi daf ma def man sëriñ Tuubaa ba ma bokk ca njaboot ak boppam wa sax bi mu def ma ba ma bokk ca saxaaba ya sarmadan ba faw ndeysaan waxaadal yi ci na mel ak sunu boroom sunu boroom omat ci barkeb yonent bi indi fi man sirran ay mbóot yoo xam ne xaaba ump na an xayrihi kudut yàlla mbóot yi yàlla def ci man ci darajaay yonent bi ump na la almuh yi sunu borom moom yi nga xam ne lu dund moo ko dundal oh yu salli moom sunu borom yal na ma jullil bi tasliimin yal na ca boole sëlmalal ma alayhi ci yonent bi julli ci yonent bi yépp foor mais ya sunu borom julli ci yonent ba nag julli yooya gën na foor mu ne yàlla na ma ko defal day ñaan boromam sañ na ko bi alihi àggale ko ca ñoñam wa ashaabihi ak i saxaabaam ñaan mu defal ma loolu nag baaxin mooy aji des ja sunu borom mën lu ne sañ lu ne attan lu ne bii ci na mel boppam tamit laa ko koy ñaan ndax moom moomee ci nammeelam laa texe bi tey ca taxañ ga ndeysaan kon yal na ma jëleel ci yonent bi yàlla na yàlla nangu yu salli alal muxtaari yal na nu juleel ñun ñëpp ñun jullit yëpp ci ku ñu tànnkat di yonent bi moom sunu boroom bil aali juleel nu ca ñoñam kulihim ñëpp wa asxaab yi ak saxaaba ya ki may ñaan mu def loolu nag mooy moxnin aji oome ja nga xam ne mooy aji doylu ja lu ko neex am ku ko neex mu jox la lu la neex ba nga doyal andil kat di ci lu dul ay coono mooy oome ba wal xani mooy boroom koom ma kooku nag lay ñaan mu julli nun ñépp ci yenent bi ndeysaan amin yuxaati bu nii ma ngay wax ak man maa la nga xam ne xiidal yi aw yiw wu sunu boroom wàcce ci man la ommat ko indil ma ko man sëriñ yiw woowa nag ay kaddu yu yiw la yoo xam ne kaddoy arab la bi am da annahu naan ma tagge ma yonent bi baat ba day formé wu doon baatab arab bu jub xocc naxu ba set wicc arut ba baax baat bi lakk ma arab ba ne ma tagge ma yonent bi te baat yooyu ma ngay jóge ci asamaaw imda annahu tagge ma yonent bi yow taggukatab yonent bi tagg ko ci kàddu yii may dugal ci sam xel ak xol ak ci sab bu ma bindee tagg woowakat ma diixan aw tagg lay doon woo xam ne aji ban tagg wu lay doon mu fi man tagg woo xam ne day wedem loowaate faiqar rëhi dagg woo xam ne day kowe ba nga xam ne kowe na mbooleem xalaat yu yiw ya lisaan sëriñ Tuubaa nee na yaquulu lisaanul xaali ma ngay wax ak man lisaanul xaal joojee nga xam ne mooy kaddu yu barkeel yooyee ma sunu borom yu yónnee ci na mel ak boppam kàddu yaa nga ma naan kun ma man ey sëriñ Tuubaa tagge ma yonent bi tagge ma yonent yi man kaddu sàngam tagge ma yonent bi muy lisaanul alja binde ma nii boole ma ci tagg wi ngay tagg yonent bi yonent boobu yi nga xam ne ci dara jaam amaaka lala sunu boroom aare annil ak dëri ca nax nax ya diggante géej ak jiiri billaahi ki na ak sunu boroom sa rëx yi tey boroom ak sàmm jaamam bu ko neex isaan yaqini moo tax am naa kóolute gu wér ak ak ñoom te day sax dakk ilal jannaati ba ci àjjana jannaati baaxin àjjanaay aji des ja di sunu boroom àjjana moom mi nga xam ne yuhi bu nii sunu boroom bëggal na ma ko ba musal ma iddaahu ca nooni diine ya muy yéefar ya sunu borom dama caa musal ndeysaan wa kulli tasaa lépp yuux yi sunu boroom dundal ko dëgëral ko bil muxtaari ci darajaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon lante ne jaar naa jaar-jaar yu jafe ak ay metit ci diggante géej ak jéeri ci biir yu yéefar yi ma nekk ak ñoom juróom ñetti at lépp luy mbañeel sama diggante ñoom mat sëkk lépp luy ngànnaay ñu am ko ba mat sëkk lépp luy pexe ngir ma faatu ñu jëf lépp ba mat sëkk lépp lu may soril taalibe yi ak saa soppe ak saab dëkk ñu am ko jëf ko ba mat sëkk sunu boroom dox sama digganteeg ñoom ba aarama ba ma mën a dundal diiney Rasulullah ji bind téere fiq yépp na ma ko bëggoon a binde bind téere tawxit yëpp na ma ko bëggoon a bind ak yu tasawuf yëpp ak xasida yi nga xam ne lépp ay julle ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mënaluñ ma dara ci darajaay yonent bi la ma sunu borom defare lu màgg loola ci biir noon ya allahu akbar moo tax man ahmadu maa ngi wax allahuma yow buur bi salli yal na nga dolli teraanga ak jàmm wa sallim te dolli sa musal ga wa baarik nga dolli sa barke ba allah sayyidina ci sunu sang ba wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin muhammad wa alihi te àggale ko ca ñoñam wa saxabi ak i saxaabaam wax tubluhu yël na nga bind ci darajaam bi kulli arfin ci wépp araf ci téere bii ngay jàng min asil urufi muy araf yi nga jàkkaar lool ci téere bii araf wu nekk yal na nga ko bindal bu saaratil baax yi mu doon mbégteem sunu boroom doon mbégteem yonent bi abadan ba faw bët bu set yal na loolu yi amaka amaat ba kër péncum yàlla moom dakk mukk lu ca diw yow yelan ko yàlla boole aleykum